ami internet leader 221 yu nañ leen jaajëfal leen bu baax a baax di amaan mbégte ak contentement di ànd ak yéen ci suñu ay programme comme niñ koy defee rek tous les jours di leen dégtal di gën a fës ci actualité euh, people dooree ko nag ak Adamo ak ki nga xamante ne moo di Pawlish mbay mu mel ne nag jamono ji seen génn bari na loolu wante itam kàddu ya nga xamante ne ñoo ngi ko génnee rek jëmale koo ci ki nga xamante ne moo di seen artist boobu di waali Ballago Seck gannaaw nag ba muy def ay tournée yu bari toogatul fi nga xamante ne moo di Sénégal ñoom nag ñu ne kile di Omaro dafa liggéey ki nga xamante ne moo di Wally Ballago Seck moom nag Omaro mu tontu leen ne leen carrément Wally Seck mën la bëgg wante itam fu muy dem man lay yóbbaale ba fal ma premier ministre te heure bu ñu taxawee sur scène rek way kon jamono ji fi ma teg tegu fa kenn moom nag Omaro kàddu yooyu rek la yëkkati ngir tontu rek ña nga xamante ne ñooy wax lu ñaaw ci diggante mag ki nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck dañuy desandi ba léegi rek ak ki nga xamante ni moo di Adamo gannaaw nag ba mu defee vidéo doon tàggatoo mu ne nag jamono ji dafa am problème ci vidéo boobu nag mu mel ni da doon waaj rek jëm fa nga xamante ni moo di tribunal ndax nag dafa am ay problème wante problème yooyu ñu ko jege rek ñooy xam lan la wante itam ñi nga xamante ne ñoo di waa famille mu ne nag pour képp koo xamante ni gisatoo ko mu publier benn vidéo na nga xam ne rek dem na prison te dina tëdd atu kaso wala rek bu ko tëddul dina tëdd six mois ngir rek andi ay leeral ba bu ñu laajtee ani aadamu moom nag looloo waral rek nee na mu def bile vidéo Mbaye Kouthia gannaaw nag ba mu doon amal tournée mu nag def benn accident bu metti ca yoon ba depuis loolu nag mu mel ni mu nga tëdd ca lalu hôpital kenn laalu ko ñu ne nag ñu bari dañ doon wax xaritu mbay Kouthia lañ ci noonu nag kum daan fekk rek wala ay nit yu da borom daraja daan leen vidéo wala itam daan wane seeni ay mbir di leen sinap ñu bari nag di laajte nit ñooñu anañu parce que ba mu defee accident ba léegi kenn laalagul ki nga. xamante ni moo di Mbaye ca wante itam ñuy ñaan képp koo xamante ne rek bonne volonté nga wante itam daan nga jàppee mbay comme sa xarit comme na nga ko daan waxee ci vidéo ba nga ñëw jàppale mbay ndaxte fi mu nekk jamono ji metti na loolu ca lalu hôpital ba. xewoon Bercy nag mu mel ni jamono ji ba léegi dafa jur ay polémique ca Bercy Sidiki Diabaté ba ki leen nag di. mbay Sy moom nag defe naa ni kenn du ko dégg ci ay wax wante niki ni barki démb gis nañ sotti ba nga xamante ne amaloon na ko foofu nag ca Feeling dakaar moom nag yëkkati na kàddu yoo xamante ne kenn mësu ko dégg ndaxte nag kile di Boucher ñu bari dañ doon laaj ba xam dafa am problème ak kile di waali Balago Seck moom nag mbay si mu indi ci ay leeral mu ne waaw dañoo amoon ay problème ndax gannaaw penc ma ba léegi loolu la Boucher jàppal ki nga xamante xamante ni moo di Wally Ballago Seck ba rek muy venger wu ci moom wala itam di ko utal ay noon wala rekk di ko tëkkaleek ay artistes wante itam mu ne carrément ñoom ñaar xamante nañ bu baax a baax te Boucher kum ne bëgg na la rek ci artiste waxul lu ko waxul dëgg wante itam lu ko neex lay wax waali rek moo dee ci xolam wante ni mu demee rek la moo waral muy venger wu mu ne nag carrément trop c'est trop ndax nag Boucher na arrêté bàyyi li muy def teguwul fenn waali dafa am famille wante itam dafa am ay njaboot njaboot am papa am yaay comme nag ni ko Boucher amee donc nag na rafet rek te mënoo bañ waali nag bëgg mbay si wala nga bëgg képp koo xamante ni rek jege nga ki nga xamante ni moo di waali balaago seek di jaraxu gannaaw nag ba mu amee problème ak kile di Carlou D moom nag mu ngay présenté ay excuse am ka nga xamante ni moo di Carlou di doon ko rek baalu mu ne carrément bu fekkee mu ngi ko tooñ mu ngi koy baalu bu baax a baax parce que amul woon intention minimiser ko benn yoon donc nag comme que Carlou di loolu la gis mu ngi koy jéggalu moom DJ internaute leader 221 lii moo gënoon a fës ci actualité euh, people amoon mbégte ak contentement doon ànd ak yéen ci suñu ay programmes di leen jox dig